mais jamono ji ci làmb ban xale nga gis jëmmi Falaye Baldé ci moom. doomam. ama doomam. lan la jël ci ci moom mhm. ci moom discipline. di mhm. nga ñaar yooyu mbër su yaroo lu mu bëgg rek mu am ko. Mhm. am na ñu ko fi njëkk a feeñ. mais léegi moom rek ngay dégg. Falaye Baldé noonu loon Fodé Diouf mi ngi fi Barabara mi ngi fi Cheikh Mbaba mi ngi fi woon te ñoo xaw a am jamono Cheikh Mbaba moom biñ ne ko dañ lay boole faale moo ne ah man de fas naa yéene man lim yii di faale daal man duma ci bokk parce que man duma bëri faale Cheikh Mbaba ñoo bokk dëkk Mbuur jamono yooyu ñu mën a bëree ak waaye ku ci meloon ne faale ban la jàppoon koo faale ban la jàpp na ba muy yëngal la ba sa taatu yëngatu ca kaw rek sa tànk kii Ama Baldé jël na combat Lo. ah yàlla baax na Modou Lo it nag xale bu mën a bëri la ku yaru dama la ne soo ñemee yaru respect mag ñi respecté ses supporters respecté support adversaire yi foo jaar da ngay mm-hmm. muy football ba muy làmba muy boxe ba ñett soo ko defee foo dem da ngay dem ñëpp dañ lay boole bëgg. waaye soo demee ba sëy ci porté sa euh, soo leen gisee ñu ñu ñu doo dem fenn. soo yemoon na ngay doo dem fenn. bëree du rëy bande keroog ba mu njëkk a bëree duut ba kasaar ci stade ba yàgg na. keroog njëkk a seetaan euh, euh, ma yaakaar ne Fodé lay bëreet ma ci kii moo ëpp kii. laa ilaha illa ndeke Falaye Baldé lay bëre foo di arrière noonu doon arrière ba toog Falaye Baldé taxaw man sama xarit bi taala man ah, ah. waaye kii kii day lekk Falaye Baldé kii te boobu duur bëgg saa ñoo bokk sares waaye mën na ko duud na sarax ah nga xam ne réy ak tuuti bën a bëre du benn kolal Moustapha Gueye man li lay lay wax yi ba yem ni ñey waaye sa carrière du yàgg mbir yu njëkkee ñoom baaboo lii baaboo bii tey mbir yu bari tey tey moo man xale yi ba Gaye numéro 2 moom tam ñoo ñoo ko yar fii ci Pikintal bu bees bi moo kii ñoo yarandoor moom Malick Ngingue mi ñoo ni xam ci mbër mbër daal li ma leen a dénk da ngay nekk bëgg say supporter bëgg supporter faale bande soo ko fa ko supporter adversaire da nga yaakaar ne euh, fa fa fa la def te loolu bu yal na